Sénégal il y a un déficit d'enseignants yi au Sénégal d'ailleurs je sais pas si vous allez confirmer est-ce que da ngeen di on m'a on m'a annoncé le recrutement spécial de 8000 autres enseignants euh, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y un euh, déficit non non non non xam nga on on moom c'est impersonnel est-ce qu'il y a euh, non déglu rek non dafa am loo wax spéciaux prévus cette année non man en tant que ministre de l'éducation nationale fi ma toog nii aw ma benn information bu may wax ne dinañu recruter huit mille aw ma ko mooy liggéeyu ci amul. amul perspective boobu non gisuma perspective boobu amul xamaguma suba peut ñu xool mais tey décision yi ñu jël amul benn amul recrutement huit mille.